jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ko ci nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax ci ànd bu rafet bi nga xamante ne yéen a koy ànd ak waa wasaare bu ngeen gisee kilifa gi nga xamante ne moom la ñu toogal nga xam ni euh, yàlla baaxal na ko mu doon kilifa boo xamante ni vraiment li ngi c'était la première fois ñu toog ak moom waaye am na ci loo xamante ni euh, wolof daf na tungu ne du teew ñuy nëtt ci ëkk. muy Serigne Cheikh Tidiane Niass Serigne Cheikh Tidiane Niass nekk koo xamante ni euh, dañ koy woowee dof ci. maam Khalifa Niass. dof ci maam Khalifa Niass bu ñu nee dof ci maam Khalifa Niass nag nga xam ni bëgg góob day indi dof ci ki nga xamante ni moom nga bëgg euh, loolu yëpp dinañ ci waxtaan mbokk yi waxtaan ceeg moom gannaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéyal waxtaan bi kilifa gi maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. <clears throat> alhamdulilahi waahidil ahad allazi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad mbokki internet yi mbokki Sénégal mbokki àdduna bi ñuy safoo di seetaan seen site Wassare TV man jaam su tuuti si xeebu euh, gën a siiwee ci Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Niass di set ci Mawlaaya Xalifatul Xaaji Muhammad muy maam Xalifa ñas ku xamul maam xalifa mu ne la mooy wayjur ci Sidi Lamine Niass di maam ci oustaz Xaadi Niass di wayjur ci Ahmed Khalifa Niass moo jur ki jur sama wayjuru góor di sama maam direct man jaam soosu maa fas yéene partagé li ma yàlla dénk tuuti ci xam-xam ak jaam ñi nga xam ne yittewoo nañ ko. Mhm. sëñ bi tey ñu ñëw seet si la li ñu bëgg a waxtaanee lu baree bari euh, bari na ci réew mi mais gannaaw loolu dañ koy njëkkee ci yow. Euh, tey lan moo la dugal ci li nga xamante ni mooy wàllub ñaan ak ñaan nan la la dikkee ak kan moo la ko jàngal ak ci nan nan la la dikkee. waa laaj nga laaj bu am importance parce que euh, yàlla moo wax ci alxuraan ne ad'uuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen mais ci biir astajib lakum gi mu tënku sirru ñaan ci miim gu mu jigi borom xam-xam ne miim gi alif moo koy mottale ñu ne déedéet allahu ndax tur yàlla yëpp allahu moo mooy mooy premier ismulal azam yeneen borom xam-xam yi déedéet tur yàlla allahu mënut a dem sans muhammad ndax laa ilaha illallah muhammad rasulillah ñu ne kon tënk bi mooy lan am la hëlla mahadu am la hëlla mahadu googu mooy sirru ñaan bi sirru ñaan nag euh, ma judd ci kon man damaa war a ñaan ndax man ñaanuma yàlla pour nekk sëriñ yàlla moo programme tànn ma pour mën ma nekk sëriñ parce que moo def xalifatul xaaji Mouhamad di sama maam comme si ni nga xam ne defee na ko ñeneen sëriñ Touba radiallahu anhu di seen maam comme ku sëriñ Touba nekk sa maam boo ñaanee wàcc nga boo ñaanul wàcc nga ku alaaji Malik nekk sa maam boo ñaanee wàcc nga boo ñaanul wàcc nga bukkante Njaasaan ñeneen ak ñeneen imaamu laay kon xalifatul xaaji Mouhamad bokkoon ci cinq premières yi nga xam ni na am mu am du am mu am dañ ko koo jagleeloon kon man ma ñaan daf ma war mais nag olof ne dondu don dondu moo gën a dëgër arab ne la ana ana lay show ku naan man la man la du yow dondu gën a dëgër ñu ne lu gën a dëgër mun a jàngi ndax ki ndayam bon baayam bon mu judd baax fu mu jëlee baax fu mu jëlee baax ñu ne bonne question ñu ne ndayam bon baayam bon mu judd baax it fu mu ku ndayam bon baayam bon mu judd baax fu mu jëlee baax ku ndayam baax baayam mu judd bon fu mu jëlee bon ñu ne kon bonne question kon dondu dëgërul ñu ne kon lu dëgër ñu ne jikko ndax wa innaka la ala xuluqin aziim la yàlla tagee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jikko yooyu nag ñu yaree ñu ci jikko yi makaarimul axlaax yaree ñu ci jikko yi tedd nga yaree ñu ci jàng ak jàngale yaree ñu ci xam ak xam le bañ ñëw tey fas yéene ñaan ñaan nag du lu yomb ku ci yàlla natt na natt bu rëy ndax li tax du yomb du lu mooy ñaan kat ñett daf koy daf koy arrivé wér daf koy arrivé ndax ay nelawam du doy ñaan dëgg dafay tabe. tabe daf koy arrivé ndax am na kuy ñëw di ñaanlu si si yow wante yorut lu mat nga mottali ko ci xam-xam gi la yàlla mottalil gi la gim la matalee daf daf lay arrivé waaye beneen bi beneen bi ci ëpp solo mooy ñaan ka dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg lekk lew daf la war a arriver dafa war dal sa kaw ndax nga ñaan mu dal dafa war a nekk dafa war a nekk ci yow loolu noonu kon don yëpp bu ñu ko dajalee par nag suñ waajur jël ñu yóbbu ñu fi nga xam ne mooy ndar ñu jógee fa dem dëkk bu ñu wax ba Mbayeen gannaaw Kër Madiabel jógee fa mu yóbbu ñu ci réew yu uutee ak dëkk yu uutee ñu jàll ba Maroc jàngi fa ak yeneen réew yoo xam ne lim ko mënee su ko wax ci émission suñu waajuru góor nag jël ñu jàngal ñu ndax moom ki ko jàngal lasaraar alaaji Omar Niass radiyallahu anhu deuxième xalifa général troisième xalifa général bi maam xalifa Niass moo ko jàngal lasaraar gannaaw ba ko bàyyam jàngalee alaaji Omar Thiam ki nga xam ne moo man ci lasaraar ci Sénégal ñëpp dëppoo nañ ko lasaraar bu ñu ko waxee nag mooy tur yàlla yuñ dëppoo dagg ci aw ay xawaatim yu uutee yoo xam ne nit day ñëw wax la soxlaam nga dugal ci xaatim léegi dagg teg kooku moom ñu jàngal lasaraar muy sama waajuru góor Seydi Mouhamadou Habib mi ba pare nag soog jox ma ndigal yeewi ma waaye ci ka jox ndigal googu yee muñ ci ñaan kase dañuy liggéey dañuy commerce dañuy bay dañuy nangam ndax boo bëggee ñaanal nit ñi mu dal il faut nga jox sa njaboot gi lu ñuy dundee mu lew. Mhm. da wax nga ko da ngay commerce da ngay liggéey da ngay bay waaye sëriñ bi kon tey loolu noonu yëpp ak ak fi nga bokk. ak fi nga meññee est-ce que ton kon mënul woon euh, jarut ngay bind wala ngay ñaan wala yu mel ne nga toog ñu lay indil àddiya nga jël ko parce que mérité nga ko ndax sa maam. waaw xam nga euh, mooy li ma la wax léegi dafa am loo xam nattu la bu la ko yàlla tegee rek nangul ne moo la ko teg duutoon suñ sago sax ñuy génn ci ay internet ak yu mel noonu waaye yontu sallallahu alayhi wasallam sax bu ñëwaatoon dana génn ci internet ndax jamonoom lañ toll. ndax jamono bu ci nekk kullu saaxatin laaxatin bool bu ne am nga ko biir accompagner jamono jooja kon jamono ji jamono internet lañ toll te ñi xam buñ nëbboo rek ñi xamul réeral askan bi te ñi xamul ñoo ëpp ñuy réeral askan bi ba tax na ñu mel ni ñun doomu soxna yi donte ñëpp ay doomu soxna lañ ndax kenn ku ci nekk sa ndey na ñu muur ko fañ ko war a muure waaye bu ñu doomu soxna yi maanaam wax la waxin la di di laaj déggin maanaam kon boog ñun ñi nga xam ne ñes lañ sant wala si wala Mbàkke wala nangam donte gënuñ kenn ay nit lañ comme ñëpp rek wante it référence lañ kon ñun ñun dañoo war a jug génn wax ak askan bi yeey leen la ciy dëgg ñu teg ko nii la ci du dëgg ñu teg ko ne le parce que man mii ngay gis defoon naa ay jéego yu rëy ci état di ñaan ne nañu daggal àll bu rëy ñu yóbbu fa mbooleem kuy sëriñ di génn ci réseaux yi ne mën nga faj di ñu laaj la nga mën a faj ñu indi la lu méngoo feebar bu boo ko mën ta faj ñu jël la yóbbu la kaso foofu jamono jooju lañ ndax buñ ko defoon rek liy dëgg feeñ li fen feeñ mais tant que àggun foofu rek fen mooy ëpp dëgg attaqué ci ci ci ci média soit euh, ak ci ku munti doon rek mës na laa attaqué. ñemewuñ ko amuñ fit boobu benn sëriñ ci kaw suuf wala ci Sénégal buy wax waxuma nag bu ma ne sëriñ nag waxuma ñi nga xam ne yàlla may na leen ndax euh, zalika fadla it ma yasha yàlla mën na laa jël sax yow def jox la loo xam ne joxut ma ko waaye sëriñ yi wax fii ci internet bi ku ci ñemee attaqué sëriñ Cheikh Tidiane Niass man gisaguma ko tey it waxaguma lu ma fi attaqué benn affaire da am na ba ñu yëgee ne maa ngi dox loolu ci état ne nañu daggal àll bu rëy ñu tabax ko yóbbu ñu fa ñun sëriñ si ku ci man feeñ ku ci manul feeñ ndax nax gi bëri na moodu moodi ñu ngi leen di nax di leen arnaqué di leen di fen ku dugal sa am na ñu bëri wala sëriñ xaalis suñ la oowaatee sax doo leen jël far nga boole leen nangam nangam nangam nangam loolu nag tant que état jugu na yaaya jàmme defoon sëriñ si nga xam ne dañ leen utal bës di leen utal ay tur ci internet bi ñuy wër di fen di kàcc di lekk xaalis jàmbur yi feeñ billaahi lazi laa ilaaha illaa hu dëgg du lu dëgg rek moo yàgg ci réew ba njegee lool am na nag ñu ci bëri oonañ ma ne ma yow yoon bi nga jaar baaxut ndax nangam ñoo bokk milieu may leen milieu bi daal ku ci bokk ak man benn mbir dong ngay ku bokkut ak man ragal yàlla rek boobu ñoo bokk milieu waaye bokkuñ dara milieu bi së jëfi sëriñ nag fi mu toll nii la ko nit ñi def mais ay attaque sëriñ Cheikh li subhanallah loolu ku ku nar gudd fan xalaatu ko. sëriñ Cheikh ñu ñëw ci li nga xamante ni noonu ngay ñaane ci lan ak lan ngay ñaan li saxaar noo koy defee. ci prix bi fu mu toll ndax am na ci ñoo xamante ne ñaan bu dee Sénégal la 2000 la bu dee bitim réew tant de euro la nan nga koy def condition ngay tegal nit nit ki ci nga koy xoolal ba pare doog ko mën a defal li nga xamante ne mooy ñaan. waaw xam nga listixaar euh, maanaam boo koy defal nit euh, mënoo jël ñaari person ñett personne ñu bari dañuy jël téeméeri nit laaj ki 20 euros kii 30 euros kii nangam ki nangam même benn benn prix laa am mooy fanaanoo cinq mille francs laa koy defee. bu dee Sénégal ak bitim réew fu ci mënti doon. bu fekkee seet la nag seet mooy li wax ramli nga wax ma oo ma jox ma sa tur sa tur yaay ma boo jàpp wax la loolu deux mille six cent laa koy defee juróomi bu paas buñ paas buñ wàcc la mais ci kaw loolu yëpp amul importance li am importance mooy nga man li ngay def man mësuma ci télé laay waxee mësuma seetal nit ne ma la nga ma waxoon amul. damaa jàng dama jàng dama xam dama xam liy ramli nit nag pour nga seetal ko mu nga xam ne kii nangam mënoo ñàkk a xam tabian ne mën nga seet loolu mënul nekk tabian mooy maawi yu naari yu haawi yu turaabi yu ñeent yi nag nit ku nekk ci nga jàpp ci ñeenti yi ñaar yàlla ci ñeent yi la composé nit ngelaw suuf safara yaa ngi dégg ndox ñeent yi nag moom la composé doomu aadama comme ñeent yi la composé doomu aadama kenn ku ci nekk doo génn ci ñeent yi nii mënoo nag xaw ma nag bu pare ne mën naa seetal nit ki ay sëriñu courtier rek moo fi am man li may oo ci ay billahi wal ci télé laa nekk barke Sidi Ahmed Tidiane Serif li may ay sëriñ di laaj di laaj ay sekkari man damay mujj tee sama gémmiñ ñii dañ la laaj sekkari ngóor te nee nañ ñoom dañuy faj ngóor ñii dañ la laaj sekkari naam te nee dañ koy def mu jëriñ lan mënul dañ dem liggéey dañ dem liggéey ci jamono jooju lañ toll. du ñuy faj ñoo gën a feebar sax ñi ñuy faj. ah du ma ne la déet ndax sa sëriñ si bu ñu demee ba ëpp ñuy faju moom ñuy faj ñuy faj a gën a kii waaw fi mu toll damay ragal génn ci internet sax ndax euh, fi ñu lay dëkkale dafay fekk ne dëkkoo fa ndax man yaakaar naa li ma yor ci taalibe ëpp na ñaari junne taalibe dañuy wax ne maa leen joxal sama bopp wéru Tijaan waaw chaque ziar lew nañu seen wala chaque gàmm wala nangam dañuy dañuy jënd ay nagi nag ñi ñi ngi Brésil di ma dékk ñi ñi oto bi may dawal sax ni da ko dawal ni da ko jëkkati kayitam ak lépp ñëw am kon kooku boo ñaanee wàcc nga boo ñaanul wàcc nga waaye nag dañoo toll si jamono joo xam ne ku xam toog rek ëllëg yomal xiyam yàlla dana la waxoon ne la ah dëgg dëgg maa waxoon fas alu ahla zikri ku xamul na nga laajte waaye yow toogoo fu ñu lay kon ñun dañoo war a toog expose suñu bopp ngir ñu laaj ñu ñu waxalaate hmm. eh, sëñ bi ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy dañ dëpp gi dañ dëpp gi mooy wàllub ñaan sëñ bi ñu bari dañuy naan rab ak jinne Euh, du ñu benn léegi bëggoon naa nga indil ma lan mooy rab lan mooy jinne jinne bu jàppee nit euh, ci nan lay manifesté woo wane ni kii jinne moo ko jàpp soit mu bëgg borom kër mënu koo am wala ku bëgg soxna mënu koo am wala ci nan lay mën a manifesté woo ci moom ba da ngay xam ni kii jinne moo ko jàpp wala rab nga ñëwal ma li njëkk mooy rab ak jinne euh, lan moo leen utale laaj nga ma loo xam ne mooy sama méthode. laaj nga ma loo xam ne it euh, alhamdulilah dama cee am may. wa annal fadla bi yadillaahi yu'tiihi man yashaa'u ngëneel la yàlla ko teg sama loxo. muy mbiru rab. bëri na sëriñ suñuy dalal ci télé yi ñu naan rab ba di nii la toll nangam dañuy fenn kuñ ma tëjoon ak moom ci nekk barke xalifa ñes nga daw génn waqit man xalifa ñes mooy sama maam alaaji babacar deuxième xalifa général maam xalifa mooy sama maam moom moom xelxom moom moom jaaga sañ saaliw moom xelxom muy xaritu sëñ saaliw benn bakkan ku ko xamul dégg nga ko ci internet laay wax alaaj Babacar moom lañ daan dàkkantelee borom jinne yi jinne yi nga xam ne daan nañ dañ daan ñëw di ziare ci sama maam Khalifa Niass radiyallahu anhu bu ñu ñëwoon daf leen di wax ne dem leen ci Babacar mu dalal leen moo leen daan dalal kon man sama maam bi jur sama waajuru góor mooy alaaji Babacar Niass borom jinne yi waaye nag ci kaw loolu taxul ma yaa fus de damaa dem jàngi ba xam ba am lu ma dikkal wan ma wax ma première chose mooy jinne ak rab benn la nit ñi dañuy réyal wax. naan jinne rek nangam dañuy fen rek benn la ndax yàlla def ne wa maa xalaqtul jinne wal ins illaa liya'budullah maa urid minhum rizqan wa maa urid an yutimma illaa huwa razzaqul qawiyyu matin loolu wax ci alxuraan nee na binduma nit ak jinne lu dul ñu jàmm ma foofu détaayul mais ci biir nit ak jinne nag dafa am xeet nit dafa am séeréer dafa am séeréel am tubaab am brésilien am caverdien am nangam am nangam ci biir jinne nag dafa am li ñuy wax lu ñuy wax kus kondrang hmm. yaa ngi dégg hmm. am li ñuy am am lu ñuy wax euh, jinne baatu jinne moom la yàlla indi présisement comme nit al ins ci biir nit ci biir jinne jooju nag ca la mag ñi génnee baatu rab dooy gis booy naan meew weñ dugg ci ñooy la génneel rab bi parce que dañ doon oyofal tur bi parce que turu jinne moo diis ñu koy oyofal ci noppi xale yi ba indi terme rab mais benn la rek moo tax buñ toogee télé sax di wax rab nii la mel jinne nii la mel maam ree daf may jàpp dama naan ñii dañoo dof léegi yàlla nag amul jotu détaillé rab ak jinne moom dafay indi pérésif bi rek noppalu léegi nit nag ci la nitu guddi génne mooy li ñuy wax dëmmu xam nga yàlla indi ko ci alxuraan mais génn ci existe na rab yi ci jinne la génne existe na ëslu bi maanaam sabab bi jinne moo am rab amul rab nag mi ngi mi ngi mi ngi génnee ci turu jinne kon mën naa ne daanaka sëñ bi rab jinne dëmm yëpp benn duñ benn de lan moo utalee ñëw nga. nitu guddi nitu guddi. ma yefal tur nitu guddi mi ngi génnee ci doomu aadama ci nit lay génne lan mooy nitu guddi. mooy baat bi nga tudd dëmm. Hmm. mi ngi génnee ci doomu aadama. mënta nekk jinne àggul ci maqaama jinne it. Hmm. waaye ci biir loolu rab mu ngi génnee ci jinne moom tamit ku ci nekk dafa am foo génnee léegi nag ku ci nekk ci bi nga génnee nag na ngay def dafay niroog sa morom la muy def jinne man naa ñëw sol nit nit kooka di wax turu nangam fekkee fa feebar ñu ne ñu ne diw ko jàpp fekk diw xamul luy loolu na xamul sax luy bëri na du ñuy tam fii ñakk doo nga tax ñu leen di tam ku ci am ke xam nga ne man ñemewumaa dem palais ba naa man a Macky Sall nangam la nitu guddi la ko bu ma ko defoon ñu jël si ma keneen ñemewu ko bu ko nekkoon da nga ko sàngal sutura su ko keneen nekkoon da nga ko sàngal sutura kon ku amul dong la ñuy tam loolu ku ku amul sax bañ tab ko ko boo commencé am ñu commencé laa may jabar naan ah dañ doon wax rek pourtant kiiwul de nekkul nekkul kii de dafa jote woon ak mu mu kii ko di kese am senegal léegi ci biir loolu nag jinne damay dégg ñuy wax ci télé yi ne dañ koy faj di ko dindi ci nit di def ay mike dëpp ay caméra jël nangam nangam nangam. gis naa koo xam ne sëñ bi bu bu bu duggalee comme ku mel ni sëñ Bas rek mu commencé wax loo may defee nii. loo may jàppee nii eh. su ma neexoon def ko. loolu su ma neexoon def ko ni ma koy defee mooy waa dañuy waxtaan rek non non non loolu amul juste wul parce que euh, ku ne journée mille francs nga fay ko 5000 ne ko kaay nga defal ma nangam day ñëw. day ñëw Sénégal caaxaan yi moo fi bari billahi wallahi wal kitaab bi ñi xam waxun ñi ñi fees dell waxun go bu bërigo bu bu amul rek ngay teg ci montagne muy xararari mais bërigo bu def boo ko tegee ci montagne tek lay def. noonu la xam-xam mel xam-xam dëgg ku ko am doo dëpp ay caméra ay jinne nii laa koy génnee suñ mag ñi kan moo leen dàq man sama laaj laa ñu jàpp jinne nii ni ma la jàppee eew ko ci guy gi nekkoon digg digg ña seen jàkkaarloo kër Sidi Lamine ñu xëy mu tër ko rendi ko muy fajur ak majur damay wax maguñu seen ñi ngi may dégg ci télé laay waxe kon nañ bàyyi détails yu ay ji jinne dañ koy nangam ay ay cinéma rek la ñu amul gis nga jinne lu ndaw la ma wax ko tey. jëfam moo rëy mais jinne lu tuuti la lu ndaw la mën naa toog circonstance fi may waxee nii nii ak yow nii mën na fee màgg presque lu tolloog ay mille mille kilomètres jëf ji la ko yàlla rëyal mais xaqiqati jinne rëyul dëgg-dëgg jinne boo ko jàkkaarloog moom da naan maam da da nga da naan xay li kon lii mooy jinne da nga koy soofantal mais su fekkee nag dafa la indil melokaan woo ñemewul nangam nit day am ay ay ay jabaru jinne ay nangam mais suy ñëw day ñëwee melokaan wi nga ko ñemee melokaanul nit lay ñëwee nga ko koy ñemee muy def nangam muy def nangam danaa ñëw nag ci jinne lan mooy principe bu jàppee nit pour wax la ne la man dama ci toog nit nit day dof ñu yeew ko ñëw indil ma ni may waxee war maa ngi war a dem nii léegi Kaolack billaahi wal kitaabi kuñ kuñ ku ñu yeewee Koungheul indi ko ma war koo dem faji ci te su ma àggee qul wahiya a anna nafaru minal jinni ba ci satataan gi rek laay bind am lu ma bind rek ut ut xeer dënn ay xeer dënn boolante ko rek am ay xas ak ay ren yu ma boolante jàmb ko rek ñu sangee ko ko li ci des ma sël ma sël ma ko bindaat bindaat xuluhiya dagg dagg xawa xawaatimu Souleymane pire pire et dur bi parce que Souleymane moo ilifoon lépp luy njanaaw jinne ak rab moo leen ilifoon. li ngay wax ni mbaa courtier yi ko jël. jànguñ ko mënuñ ko xam jànguñ ko loo jàngul loo ko tari mënul nekk dégg nii rek dem faji man moom dafa yomb sëñ bi ki ko man ak ki koy jëm mënuñu nekk benn loolu man ñes laa sant. Khalifa Niass mooy sama maam damaa damaa xam li may def man ko waaye nag ndamuwuma ndax la in zakatum la azidannakum yàlla yalla ne dee leen sant may dolli sama maam ne taxaddusan bi te ndaxmatil wahabi toujours man Khalifa maa ngi sant rek ndax li ma rawee ñëpp ci sant la su ma dul sant rek yàlla du dolli murid yi ñëw ne cant gi ba utal ko aw kon ñu gis na àdduna lépp cant yàlla la ku lay dolli maa ngi sant nag ndamuwuma puukaruma jaam laa rek nit laa damay feebar di faju ji damay dee ñu suul ma. damay am soxla mu tëgg a sotti comme comme ni ko nit ñëpp amee waaye bu dee wàllum faj wàllum ñaan yàlla bëriwul ñu ma ci tolloo fii fii ci réew mi de. sëñ bi ñuy ñëw fii ñu ci bari di di ñaanlu si ci lan la ñuy ñaanlu ci lan ak lan ak lan ak lan moo leen jàpp ak lan mooy jafe-jafe askan wi. waa xam nga kii ñaanlu dafa war a am melokaan yi mu indi bu ñëwee fekk ko ca ka muy ñaanloo melokaanu yar moo ci jiitu mm-hmm. melokaanu dal teey topp ci melokaanu dëgg tax laa jug nga def farata la ngay def ak ka nga séq ak mu jeex nga dem mu dem ñetti nit nag ñooy ñaanlu si am na kuy ñëw pour xool ouverture ba xam yow ni ni nga waxee noonu nga mel wala déet am na kuy ñëw pour yaakaar la rek gannaaw yàlla am na kuy ñëw it pour yow ñaanlu si wut waaye dafay ñëw pour nga jox ko yow ñetti ñii nag il faut nga ràññee leen pour nga ràññee leen nag il faut nga nekk ndongal daara jàng xam xàmmee ràññee matale. ba pare nag di def ay social te doo te doo ko ngistal doo ko wanewu di def ay social di dimbale néew gi doole ñi nga tane mais tànk yi amul matalawul rek mënoo xam kii ngay ñaanal naam ñi fi ñëw nag seen soxla na sëriñ taximaan ak docteur ñoo yem waruñoo weer secret yi ñi fiy ñëw ñi ñëw ci ñoom sutura moo jiitu ci sëriñ boo amul sutura moto sëriñ nga xam naka la ñuy ñaanee fan mooy yoon bi nit dañ koy jox ay càngat muy sangatu ba dee du gis dara li koy waral mooy awut fa mu war a aw parce que ki jàpp tabi ki jàpp naar yu nga bëgg koo nga bëgg koo sangate yenn càngat yi da nga koy nax doonte cangat boobu cangat bu baax du gis dara ki jàpp euh, xaawi yu nga bëgg ko def ko jàpp trois bi yu nangam ko jàpp nangam nangam ne ku nekk dafa am càngatam am adadu su jour bis bis bu ne li ci li muy dox ki tudd seex toujours am na bis am na heure ki tudd Mouhamad toujours am na bis am na heure ki tudd nangam toujours am na bis am na heure nit ki nag mënoo koo ñaanal mukkute nangam rab na ku la wax dama koy faj te du ma ko fajee ci alquran mu wéer waxul dëgg ku mën a doon ku mën a wax ne mën naa faj te xamul dara ci alquran ne mën naa faj rab waxul dëgg man Cheikh Niass maa ko wax. barke Cheikh Oudou Diagne moo ci nekk nag defal la ay sunguf ay ay dëpp dëppal ay nangam nangam rayal nangam mu calmé wu dans ans trois ans mu yëngalaat te bu la yëngalaat sax day gën a métti nam la yëngalee woon boo da ngay dof bu la yëngalaat pour wax la rab pour nga faj ko dëgg dëgg dëgg da ngay xam niñ koy fajee man ko. yeew billaahi wal kitaabi su dul woon ak weer sekere billaahi la si yuuxu dana jub fuñ ko foogewul mais toog ci télé yi di wax di nangam dafa bari dafa bari dafa bari. sëñ trop mais sëriñ bi li ma bëggoon ñu gën ci xuus parce que jafe réew mi dañoo bari am na ci xale yoo xamante ne fi mu toll nii fi réew mi toll génn réew mi rek la ñu bëgg am na ci ñoo xamante ni fi mu toll nii ubbeeku rek la ñu bëgg lu ñu laal mu yàqu. lu ñu dugg sax lu ñu leen dugal mu yàqu lu ñu xam wala lu ñu teg seen bët dafay yàqu loolu mën nga ci dara. Ah, waaw xam nga mi ngi mel ni nga ne ma géej gi ndax xam na ndox. noonu lay mel rek wàllu càngat moom ak ubbi ak yëkkat nit ak fal nit ak folli nit loolu alhamdulilah secret boobu ñeseen am nañ ko. xanaa nga am ca ndigal ak nga bañ caa am ndigal moo ca nekk buñ doose ak buñ doosewul waaye man alhamdulilah maa ngi sant yàlla bu baax a baax baax bëri na ñu ma yóbbu ñu tukki yére yi may sol ni may def ni may nangam lépp ñoo ma koy jox. bari na ñu ma ñu ma dimbale gannaaw yàlla yóbbu la ñu tukki man nag mënuma nit laa rek yàlla mooy mottali mooy sab dañuy sabablu rek waaye pour taal nit pour def nit millionnaire. pour taal nit xam nga damay dégg parfois sax ngay wax am ko commentaire ci suuf ne oh, lu tax mu defal ko boppam. wala lu tax nangam c'est-à-dire maam yàlla mi ngi séddale. mas ngaa gis ñu ne kër gi kër yàlla la lu am pale bi Macky Sall di fanaan ak kërug yonent bi jamono yonent bi pale bee gën a rafet waaw pale bi moo gën fi may fanaan rek moo gënoon rafet fi bi daan fanaan pourtant bu dëggoon suuf si def ko nii rek mu nekk jamaa parce que wa annahu xayru xalqilaay kulli bi moo gën ci lu yàlla bind ndayam gën suñuy ndey baayam gën suñuy baay ma préciser fa ci waaju jaxate xaw ma ki doon wax ne yonent bi nangam nangam mu nekk lu ma métti ma jooy na Sénégal dafay commencé rafle kilifa ku toll ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu taxaw ne ndayam ak baayam waxuma la ndayam mindaanu ndayam ak mindaanu baayam ñoo gën ndayam ak baayam seeni mindaan rek ñoo ko gën ndax Sëriñ Tuubaa ba mu tawee waxut ana rasulillahi de daf ne ana xaadimul bi seetlu nga wax ji ñëmewut a sax ne sama yaay wala maay mindaanu yonent loolu la wax waaw sëñ tuubaa gën sa ndey gën sa baay ndeyam gën sa ndey gën sa baay nga ne yonent bi gënul sa ndey gënul sa baay sal nga wax jooju maam xalifa noonu bàyyees noonu keneen noonu ñoom ñii ñëpp ku ci doon li nga doon yonent bee tax nga doon li nga doon te amul kenn kuy taxaw kaas ko wala nga wax ko kon réew mi ngi bëgg a yàqu. nga ñëw ci wàllu ñaan maanaam wàllu càngat wàllu ubbeeku wàllu faj wàllu ngóora jigéen ju te am doom yaa ngi dégg ngay gis sa jëkkër xolam di tàng sa xol di tàng ci yow bu la gisee sa xol di tàng bu yéegee sa kaw du man dara yaa ngi dégg du mën a yàgg sa kaw yooyu yëpp dafa am ay gestes yoo xam ne rab daf koy def mais dama koy bu mu ci mënti doon ci dama koy faj mais bala ma koo faj dama koy listixaar xool ni mu mel mooy nga feebar bopp da lay métti nga dem jënd paracetamol naan wérut nga ne paracetamol bi baaxut fekk yow tension lay xaw a rey mm-hmm. laa faj nit ki bu ñëwee ci yow di faju si wax la soxlaam da nga bind jox xamoo dara. da defal consultation da ngay def bi mooy seet bi. xool ba xam moom lan mooy problème am nga wax ne ko ah, xam ne sarax rek a war ci moom jox ko mu sangu sax warul ci moom am na koo xam ne jox ko mu sangu ak sarax dafa war ci moom am na koo xam ne danga nga koy jox mu sangu nga sarax mu def sarax nga teel ko kurus ñaana ko yàlla waaye ñuy wax ci télé yëpp guddi barke Cheikhul Jan dañuy tëdd di nelaw. dañuy nelaw ba xaran nelaw ba xëran. billaahi wal kitaabi rek ci lañ nekk. man rus billaahi wallaahi watallaahi xam naa luy ñaanu jullit amul benn fan. barke Cheikh na Amady Diagne Serif bu may boo xam ne danaa ko tëdd ci lal lu dul sept heures du matin ñu may dégg sama samay soxna ñu may dégg samay waajur ñu may dégg ci télé laay waxee sept heures du matin laay tëdd chaque jour dem naa ba docteur bu may consulter Abdourahmane daf ma ko aaye. billahi wallahi mi ngi fii Dominique. mais guddi googu ci lan nekk sëñ bi. ci lan soxla jaam ñi jaam ñi mënuñ laa dégg seen i soxla nga lekk seen xaay për tëdd di nelaw na dana faju da ngay jox yàlla lim moom. yàlla jox la li jaam ñi moom soxla bi soog di faju kun fa kun ñëw nit ñi rek ñoo naan kun nekk fa di kun kun yi di nangam mais yàlla def naan kun rek toog fi toog mu sotti dafa nekk di kun kun yi ku naan ku kuy kuy kuy def kun nekk fa di kun rek sax kun baaxul. moo tax ngeen taamu ci guddi gi. bu kër gi seddee. ngeen ciy parce que doomaadama aadama heure lay tëdd. gis nga rawxaan dafa am xuddam am jinne am nit am. xaan damay dégg suñu bëri naan sa rawxaan bi bu ko defee ñu ne la sa jinne ji nga jàll nga jàll waaw sa waaw sa jinne ji fa tax xamuñ ne sax dañuy fenn rawxaan ak jinne boo jegewun rawxaan bi maanaa ruux dégg nga wax ji rawxaan bi maanaa ruux nekkul loo mën a gis teeku mooy sa takk ndeer rek ci gàttal mënoo koo gis mënoo koo téye da koy gis doo ko téye loo sol lay sol loo lekk mu lekk loo naan mu naan boo taxawee ci naaj mu taxaw waaye mënoo téye sa nenet lii sama takk deer a nii mënoo ko ku mënul loolu rek mënoo téye sama raw sa rawxaan mais raw mais ci biir rawxaan bi nga xam ne dafay ànd ak yow mën nga koo liggéeyloo yow man sama rawxaan mën naa koo liggéeyloo parce que si biir loolu nag tur dafay am rawxaan encore au lieu que nit mais tur dafay am rawxaan latif dafay am rawxaan xamun saxakun jalaal dafay am dafay am rawxaan tur yi noonu lañ demee seeni talsam seeni rawxaan seeni xuddam rawxaan mooy président bi xuddam mooy ministre yi maanaam rawaxaan bi boo ko ba jàpp mooy yónni xudam yi defal nga def mooy nga dégg dégg borom kun fa yàkkun day day day zikkar turu turu latif 129 am na ñoo xam ne dañ koy zikkal ay 1 million nangam mais kii 129 rek la koy zikkar lim soxla ñëw yow nga zikkar ko ay 1 million du ñëw parce que tur yi aussi na ko ba pare soxlaatul mu ciy sonn loolu mooy loolu mooy secret bi secret te kurus da ñaanal nit ko soxlaam dafa am tur dafa am tur yàlla yoo xam ne it bismillahil azam yoo xam ne it yàlla denc na ca. ay secret yoo xam ne ni ruus na nit du ko ci ñant du la may bu ker gi seddee nag nit ki deretam dal na tëdd na maanaam li ñuy wax euh, ruuxam ñu bëri xamuñ loolu booy nelaw sa ruuxa dafay dafay dafay dafay éliminé wu dafay dañ jëmm ja moo fay nekk léegi ruuxu ko dafay dem ca aalam ya wëri ji mooy waral nga jékki-jékki yeewu ne demoon na Amérique gént naa Amérique def na nangam def naa nangam ruux gi mooy joowi bu joowee nag buy ñëw bu fekkee dafay duggaat teg sa sa heure yeewu passé mooy waral nga nga nga yeewu sa nokki nga ko boo defee noonu rek mu delluwaat mm-hmm. bu fekkee dafa dugg place wu normal nga yeewoo normal nga yeewu ndànk rek alhamdulilah rabbil alamin yëkkati sa téléphone wala nangam jug julli wala nangam parce que dugg na ba placé wu ndànk léegi nag après nag ruux gi commencé verser xel bi xel mi da indi indil li nga géntoon fekk am na lay bëgg a dal ci yu bon yu la nit di teg bu fekkee ne sa xaan lu baax la mooy liggéeyloo ruux gi ruux gi di liggéey. di capter capture la di capter yi war a ñëw ci yow defal la ko genre gént su ko defee nañu mel da dem ci ko mën a firi gént kooku firil la ko bu la ko bu dee sarax la wala safaan ba nga xam ne lii lu waroon a ñëw ci man la waaye nag naa ko def naa ko naa ko faxas lii li mooy kii bi li mooy li mooy secret bi. dañuy ñëw tuuti ci activités yi nga xamante ni jot naa commencé mu jëm ci wàllu làmb parce que ku ne wasaare làmb xam ne làmb rek moo ko tax a jóg euh, mu bari loo xamante ni tey ñu ngi koy waajal parce que làmb ji nee nañ euh, le premier mars incha allahu rabbi dina ubbi activité yu bari bari ci làmb dinañ dem sëñ bi yaa ngi ñaanal ay mbër. waaw maa ngi ñaanal ay mbër. mbër yan yu yuy fayee ko ay cent mille dix mille un million dix million quatre vingt millions. ah maa ngi ñaanal ay mbër te ki nga xam ne it moo toog ci roi bi yàlla na ko fi yàlla yàggal. loolu laa mën a wax mënu ma jeex déggoo maa ngi ñaanal ay mbër ki nga xam ne mi ngi toog ci roi bi yàlla na ko fi yàlla yàlla na ko ci yàlla yàggal waxuñ nag ni du ci jóge ndax euh, nguur gu sax moom mm. tabaarakal ladi bi yadil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir yàlla rek moo ko yeeyoo li wolof naan ragal féete day xañ wërsëg sëriñ bi ñaanal na ki nga xamante ni mooy moodu Xarañ loo roi des arènes bi yàgg loolu ci moom carrière Modou loo actuellement ci làmb noo ko gisee li ko desee moo ëpp li mu jugee wala li mu jugee li mu jëm moo ëpp li ci li mu jugee. waaw xam mbiru làmb nag du ma ciy bëgg sore sori du bëgg a wax. Ah, ndax euh, li tax du ma ciy bëgg a wax. mooy li ma la waxoon ci gannaaw. faalu li maa yori daal laay laay sukkandiku yàlla dara sa fukk. man na maa woon lii tey ma wax ci média suba ñu ne seex ña sa fi waxoon te doom mi soxna la. tey ëllëg damaa war a toogee xalifa général Léona Niassène. ca Raaba laa bokk. Mm. ëllëg damaa war damaa yor ay taalibi dafa am lu may sàmm sama digganteeg ñoom ci ay wax ci ay parole ci ay jëf ndax euh, olof Ndiaye def ne nit melul nam wax nam jëfee la mel képp ku jëflanteeg man nag xam nga ni ma mel. moo tax daal côté boobu maa ngi ciy maa ngi ciy tuub nag ci bañ tontu bi waaye daal maa ngi koy ñaanal ñaan nag moom mën naa am man naa bañ am. waaw hmm. sëñ bi loolu moom dañ la koy nangul léegi ñu ñëw ci jàngoro yi nga xamante ne bari na yuy dal mbëru làmb yi parce que tawat moom ku nekk lay dal moo xam nga nekk mbëru làmb ak nga ñàkk a doon mbëru la mais jàngoro yi nga xam ne da nga koy dégg ci mbëru làmb yi rawatina ñu leen di ketal di leen ñaanal ndimbal jàngoro yooyu lan la def def ku ñu def la wala wala loo xamante ne la mu ñëw ci ñu xam nga mbiru rab mbëri la gën a sonal te xamuñ ko mm, parce que rab ni muy duggee jigéen mooy bu solee lu bon noonu rab bu jigéen bii duggee bu góor biit ci anam bu nekk nag du ko yàqal benn ñaareel ba it kortu sonal na leen gis nga am na liggéey yoo xam ne bu xasee ba dugg ci yaram pour mu génn ca problème dëgg la pour mu génn ca boo dajewut ak jàmbaar ju mel ne man de góob moom mu gaaw mu gaaw caa génn. liggéey euh, def def sànni kortu ponkal ponkal mu def ponkal la koy dindi. mais ponkal bu defee bu bu bu ñu la fayee cent millions fay sa morom cent millions sa morom def ci yow cinquante millions nga bëgg un million dindi li la def da nax sa bopp. léegi bu defee nga amaat combat nag mbiru seytaane la seytaane jaay la nga daan ne lañ ma defoon dañ na soo demee ba màgget nag wala ba commencé yi bëri wala ba commencé jëf yi commencé la man attaque la daf lay dikkee ci feebar bu ñëpp xam mu dikkee la ci cancer ñu naan dafa cancer fekk maanaam mbir yi moo la dikkee ci mbir mbiru ngelaw la seytaane dafay baña a teel manifesté wu pour nga teel koo faj mu dikki mu sànni la benn feebar boo xam ne feebar boobu da ngay topp di traité yow doo ko traité moom. bu demee ba man la nag ngay dem di commencé dem ci sëriñ ñu ne la yow dañ la topp dalaa man loolu moo daal mbër yu bëri fii nii waaw mbër yi daal li ma leen di digal nañ fonk sarax nañ fonk ñaandu nañ fonk it samp samp am na de hmm. waaw lamb gis ne moo ci gën euh, jamono ji xale boobu ñuy wax ki euh, rëg-rëg kooku samp na hmm. waaw actuellement nii xamaguma liy xew ci kanam nag mais actuellement nii ku ku samp la euh, sincèrement Modou Lo laa faral mais Ama Baldé ku samp la hmm. waaw parce que wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa maanaam wax dëgg terewul nga nga baax hmm. mm, moom Modou Lo laa bëgg mu daan mais Ama bale macha allah ku samp la parce que euh, boo sonnee ci sa bopp rek fayeeku ku dul liggéey doo fayeeku yéen koy wax ki travaille ki paye ne pas travaille xaw ma jeex na takk ku macha allah ku samp la. gone gi rakku Balla Gaye bi euh, nu mu tudd Sa Thiès su góorgóorloo ci làmb dana nekk dara. Sa Thiès barki biig rek ñu ngi may boole moom gën barki Khalifa Niass su góorgóorloo ci làmb dana nekk dara. barki biig rek ñu may booleek moom ci gént soo góorgóorloo ci làmb dana nekk dara ëllëg waaw dana nekki dara ci làmb mais làmb mbiru saytaane la mbiru jinne la làmb ku la wax juste sama man mooloo ama seen bu mujj bi ba fi benn site ñëwee ngeen baal ma ci tur site tur site bi Sénégal 221. ma bëgg luy leer bi ñu fi ñëwee ku ñu wax Cheikh moo fi ñëw introsé ma fii ma wax ko ne ko mooloo dana daan ama seen jëli bu ñaaw man sama rakk bu jigéen Mariama Niass Modou Lo kii Eumeu Sène la sa pur et dur wakaale yi mi ngi doon certifié la ñu seet bi ma wakaale ma ne ko seen mbër mi dinañ ko def lu ñaaw de suñ ko dóorul mu daanu sax moo ciy gën a mu ne ma xa mu ne ma ah yow sëñ baal sa yooyu ngay wax nangam ma ne ko ah, baax na li ma ya mu ne ma ah sa jinne yi tey dañoo jooy dañuy tooñante ma ne ko ah baax na ma ba boobu jouru combat bi avant demee combat bi yëf yi woon na ba amat seen jekk woon waaw jour combat bi ay trois heures laa oo kenn ku ñuy wax Malick Sarr xaritu Modou loolu ñu gën koo xam ci Njoogu saar ñoo bokkoon daara di jàng tey ba mbayeen ma woo ko fii sama téléphone ne ko Malick mu ne ma naam ma ko na Modou Lo génnee nangami kaamil ci alxuraan na génne nangam ci goro goro gu xonq na génne nangam na génne nangam mu ne ko waaw ma loo gis ma ne ko yëf yi waajee ko moomoon waaye jamono jii may wax ak yow moo Modou ko moomaat teewaat na ko waaw parce que mbër da lay bàyyi dalay lay gañe bàyyi la nga am confiance ba dugg ci géew parce que am na ñoo xam ne buñ teelee xam ne dañuy daanu ji rek dañu porter malaat mais mbër day def fi saay-saay yooyu dalay lay jekku ba pare yoo xamal buum gi nag mel ni yaa ko jekku su ko defee foo dem ñu la yaa jekku yaa jekku nga yàkkamti bis bi bu bis bi ñëwee ba nga dugg ba ñu tëj nag tëj la. Eumeu Sène bu njëkk ba euh, am na confiance téye na bés bi géew bi <laughs> sa waa ji wëlbati yëf yi wala yéen mm, ma xamal la nag tey loo ah. euh, mosul ma weexal dërëm ci télé laay mosul ma weexal dërëm déedéet sama njaboot a ko bëgg rek ma ma ma am ci waaw ma am ci kii te yit euh, dama ko dam daf ma neex te yàlla rek tax parce que borom lax der def na booy bëgg bëggal te yàlla tax booy bañ bañal te yàlla tax mm-hmm. daf ma neex rek te yàlla tax euh, Ama Baldé mii avant muy bëreeg Modou mbër mu ma neex la woon daf ma neex te yàlla tax amul combat bu ma ko dul teel kurus ñaan ko yàlla mu daan mais damay dem ba ci biir sax ma xam ne dëgg-dëgg yi fi caaxaan la. Mm-hmm. waa dëgg dëgg yëfi caaxaan parce que euh, dalay dalay jàllar bi ci sa jaamu yàlla te man dépassé naa ay làmb dépassé naa fi caaxaan yooyu waaye daal terewul nag ki nga bëgg sa xol yàllaa ko ci roof rek yow doo du looy du looy tey noonu la jëlee Ousmane Sonko rek def ko sama xol noonu la àdduna toujours yàlla dafa am 2012 it noonu la jëlee woon Macky Sall def ko sama xol. Euh, euh, ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax mais actuellement. comme wax nga ci samp yi ban mbër nga jàpp ni wala nga limal ma ñetti mbër yi nga xam ne jàpp nga ni ñii moom saa yu leen gisee ci télé bi xam nga ni ñii am nañ ay gàllaaj yu wér wér wér. Euh, <laughs> actuellement Bombardier ci la bokk. Mm-hmm. waaw euh, Ama ci la bokk. Euh, Modou ci la bokk. waaw ñett yooyu baax na yaakaar naa. waaw. ñett yooyu baax na Modou Lo daal ak Bombardier ak Mabal lañ ñu am ñu am actuellement ñu am taxawaay lañ euh, Balla nag moom moom moo leen man nag moom beneen affaire la. ci mystique moo euh, ah waaw moo leen man waaw kooku moom bu kooku moom ah? non kooku moom. Euh, Balla Gaye gisuma leen waaye seen xol sedd na moom su dee dëgg rek xam nga li may wax léegi bëgg na terewul nga wax dëgg combat ak Modou mujj bi rek damaa toog fi wax ki ma nekk ak fi ne ko ah sama waaj dañ koy daan tey de mu ne maa ah, ma ne ko ah ki la daal wax dëgg ne yàlla ji ma wut ak ki la mënut. daal fu mu dajeeg Eumeu Sène mii moom du ma ci teeku ruus waaye bala moom heure bu dajeeg Modou Lo lam la koy dindi dëgg xaloo ga koy dindi dëgg du Cheikh Niass moo koy topp xalaatuma ko xalaatuma euh, un mois dix jours quarante jours xalaatuma ko toog ci ci ay mbër yi nii deneen ko déedéet dëgg te teg ciit it euh, mbër bu la ñemee rek yab la nit sax bu la ñemee yab la sa jabar sax bu ñemee yab la waxuma la jërëjëf Cheikh ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax euh, di jéggalu bu baax a baax ci waxtaan bi ndax kilifa gi euh, am na ci noo xamante ne bëggoon naa ko waxtaanee yow wala waroon naa ko mën ñu xam ne rek euh, liggéey bi moo ko laaj moo taxoon ma bëggoon la yëngale waxtaan yu mel noonu di la jaajëfal bu baax a baax man tamit maa ngi leen di sant ndax wax dëgg neex yàlla fu nit ñi yegg yéen leen fa yeggale njëriñu askan bi moo leen tax a jóg toog dégg benn sëriñ mi ngi ci ruq nangam. ku man dara la nga ne nañ dem yéene ko askan bi moo leen tax a jóg loolu yool boobu it yàlla leen ci yàlla fay ndax it wax dëgg ne yàlla euh, par parloo woo leen euh, euh, xawoon naa jafe sax pour ci oote beeg yooyu pour ñàkk émission bi amak yooyu ndax ñàkk jot waaye toujours rek yéen a ngi xool njëriñu askan bi yéen a ngi xool it sëriñ si nga xam ni toujours bu ngeen leen dalalee askan bi bu ñu waaxoo ñëw ci ñoom danañ ci gis résultat ndax seen njëriñ la ndax njëriñu peuple bi mooy seen njëriñ di ñaan it euh, réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na ko yàlla laytaalee jàmm teralee ko jàmm jàmm fi xajit ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay euh, kilifa diine yàlla defal leen jàmm ak yu aada yi ak kilifa cosaan yi ak mbooleem ñi jiite réew mi ak ñiy laaj réew mi yàlla defal leen jàmm ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañ fii lañ dëkk ma monsieur Macky Sall fii la dëkk doomu sénégalais la doomu Fatick la sama côté Ousmane Sonko fii la dëkk ndax Casamance mënoon ko génne ci Sénégal. mooy Sénégal mm, Idrissa Seck Thiès la dëkk ñeneen ak ñeneen noonu Moustapha Niass Kër Madiabel kon ñun ñëpp tey kenn ku ci nekk bu boo neexoon dem reere ji sa kër sa kër nawle kon mooy wane ne ñun ñëpp sénégalais lañ jàmm moo fexe yàlla fi yàlla def jàmm di wax it ne euh, képp ku aajoom narta faju yàlla bu ma xam.